ànd ak bàyyi ca njëlbeen ba léegi yokkatuñ wàccuñ waaye ñun da ngay ñëw ñaare at rek am benn dara bu bees ñetti ni topp la nga topp ci mbedd yi commencé ñi lay sikkaral nga jël kaal rango laajal ñii ndax mag ñooñu loolu lañ daan def pay dafa am teggin pay dafa am ëdëb pay dafa am yar waaye jël ay cortège jël ay oto jël ay motaar jël ay sikkarkat di yuuxu di dugg ci pee bi Cheikh mel ni ku nekk ci manifestation te yow pee bi miinu la pee bi gàmmoo gàmmu la lay gis boo ñëwee tëj xabru bi di yuuxu ne demee ziyaare baay yow lu ziyaare baay lu ci jar ay xabru ziyaare baay lu ci jël ay cortège Abdou Wilane def na loolu Daam Ka def na loolu Seydi Ali def na loolu Assane Dem def na loolu ndax ñooñ defuñ loolu yow lu tax nga war a def loolu yow yëf yi du noonu léegi nag problème bi mooy muqaddam bu am xaalis mën a joxe 500000 nga dem ci jotaayam waxal ko lu fees del waxal ko maqaama bu ne te bàyyi ngi nii mooy suñ sëriñ mosta oote benn maqaama hadis baynahu wa bayna ruuxihi hal anta aarifun billahi mu ne sameetul al talaamis yataqawaluuna zalik ndax yow aarif billahi nga yow Baye bayna duma ah de taalibe yi ñoo wax hal qutbun min al aqtab ba pare ñu oté fi ay qutbu nañ ñu dimbalé nañ nek talibé Baye ci ahmed Tidiane heure boko oé ooyee Paris man la Cheikh Tidiane la lay wax du lo wax sax Cheikh ahmed Tidiane suñ Baye Cheikh ahmed man la Ahmadou man la Alaaji Abdoulaye Baye amna ben cassette fi ni ñing ko diglu man la Ibrahima Niass ah bi yow yaay kan bàyyil taalibe yi ñu ooteel la xutbaaniya te buñ la ko ooteel sax boo ko ooteel sa bopp di fi jugee yow pays bi dafa am teggin nañ respecté xadarat Cheikh Ibrahim nañ xam fi jaaruwaay ñi jaar fa ku bëggoon la la mag ñii xamoon laaj leen nuñ meloon ak bàyyi nga mel ko nettali ne ma moom mii ne ma sëriñ boo ñëwaan ci moom yéex a ñëw tool baay am dafa chauffeur bi ne ko départal téye sa loxo ne alaaji Gaye taalal oto bi rek téye sa loxo bi ngay dagg ci ñax mi ci gànc gi sa xol tànk yi du xolleeku di dagg te doo ñëw wax benn baat te doo rocc sa loxo taali bi boo fi doxla woon fii ba Medina mu ñëw mu ne sëñ bii nag moom dëgg yàlla du sëriñ këram amul climatiseur amul ay michu yi waaye xaaral ma dem ci sëriñ yi am affaire yu neex neex yi daal moo tax fi mu nekk nii yëf yi dafa changé mbooloo moo gis mu rëy bëri muqaddam yu leen topp xama lan la أي فوف دران فا خالص فا كن جوك تخو واو ياي لي ياي لا ياي لا بو بري سيرين بي جوخ لا ولا ني خاتلا يو سيتي باي بي اه نون سوني حضره بو ني 500000 ngay am de حضره يناني دي دي دو خالص يفي يالا رك لا تا يالا دو لو ني مانيفيستي تي الله تك اي رجو دي واخ اي مراتب اك اي بوتون اك حقائق دي واخ دي توغ يناني نيت gis nga ñooñu li ñu gis mooy tooñ dëgg dëgg dëgg boo ko waxee rek àdduna bi tukki waaye gis nga bàyyi li ko yàlla may suñ ko doon wax billaahi dañ ñu rey ñun ñëpp dañu rey kon li ko yàlla may la Cheikhaani waxoon ñu ko seexaani ndax xam nga maqaamaam bi mu ne xattaa moom sax maqaamaam bi daf koo réere